salaamaaleykum mbokku Sénégal ak mbokku sénégalais yi nekk bitim réew maa ngi tudd Mouhamadou Madana Kane jiite coalition Dundu maa mbégte lool ñëw toog ak yéen wax ak yéen ci campagne bi nga xam ne ñu ngi koy ubbi tey mu doon campagne jëmale élection législative sénégalais yi lu ñu soxla mooy dund te defe naa nguur yi fi jàll yépp loolu la ñu promettre sénégalais yi jotuñu ko def ndax gis nañ fi ñu fi jaar ne maa waxoon waxet te lañ ñu digoon mooy travailler beaucoup travailler encore travailler ñu gis fi ñu fi jaar ne euh, la patrie avant le parti une gouvernance sobre et vertueuse fa ñu mujj mooy dañ ne sénégalais yi nañ leen ko ñaan ci njëkk ak teranga ñu am nag ñu ñëw ñu bees wax jub jubal jubanti ñu ñaan yàlla lañu digale digaale ak sénégalais yi dinañ ko def waaye pour ñu am ko il faut ñu am assemblée bu dëgër ndax boo gisee boobu ba tey Sénégal amul lu mu bëgg mooy que assemblée bi ñuy tegal day fekk toujours day doon taalibeewu euh, gouvernement bi dafa jot nag assemblée moom boppam assemblée bu moom boppam nag mooy fexe sénégalais yi votel ay député yi nga xam ne lu leen soxal rek mooy yiite askan wi yiite askan wi nag du leneen lu dul fexe sénégalais yi bu ñu xiifee lekk bu ñu feebaree faju am dëkkuwaay yu baax xale yi liggéey ñi ñi am koom dëkk ci kaaraange. lu ñu indi bu gouvernement bi indee lu baax ñu ñu ñu ñu jàppale gouvernement bi bu gouvernement bi indee lu baaxul ñu ne lii baaxul nañ ko doxalaat. ma jàpp ni loolu mooy député façon boobu la ñu soxla assemblée nationale. ñu jàpp ni nag dañu war a xoolaat configuration bi tey dañu am opposition boo xam ne ak pouvoir boo xam ne démb ñoo doon xeex tey yàlla def ñoom ñu ñenn ñi àndaat. opposition bi fi nekk tey bi fi nekkoon démb nekk au pouvoir aujourd'hui am na lu ñu digaale woon ak sénégalais yi waaye ñu gis ni sénégalais yi tey seen coono tey la gën a tey la gën a bëri. donc ñu jàpp ni que il faut que sénégalais yi bu ñuy décider di voter ñu xool profil yi. ndax profil yi mooy lii lay may nga xam ni kii bu demee assemblée man la fay toogal sama ay bëgg-bëgg la fay toogal waaye du fa nekkal boppam ngir bëgg falu ngir bëgg nguuru loolu nag defe naa boo leen xoolee liste yi dingeen gis ñu mel ni ñun ñoo xam ne dañuy dugg politique waaye dugg ci politique lu dul am ci yéene pour saafara soxla askan wi am jaar-jaar boo xam ni xëy na bu ñu demee assemblée am na lu ñu mën a indil sénégalais yi. coalition dund bii ma jiite investir na ay sénégalais ci trente départements fépp di ngeen ñu fa gis dinañ ñëw campagne ak yéen wax ak yéen problème mu sénégalais yi indi ci ay solution waaye buñ ci indee ay solution aussi fas leen yéene waxal as assemblée nationale bu ñu demee ba toog fa incha allahu rabbi donc ci kaw loolu ma jàpp ni nañu bàyyi xel daal ci ci choix yi ñuy def mu war a doon choix yoo xam ni dañuy indi assemblée bu bees boo xam ne yiite askan wi rekk ko tax a jóg ma leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje lu yàggul ci terrain bi incha allah asalaamualeykum wa rahmatullah